salaamaaleykum mbokk internet yi ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal am mbégte dalal fii kii di Daouda Mboup Monsieur Mboup ñoo ngi lay jaajëfal yow yaay président association askanu rab du Sénégal de la diaspora euh, temps yi nag le mot rap est un peu parce que ku rap wax rap rek sa dem ci ci accident yi <laughs> ndax ngeen koy dundee déjà euh, gannaaw loolu aussi lay remercier monsieur Kandé ci invitation bi di profito ci invitation bi di nuyu sa internautes yi di ñaan lépp lu ci wax rek mu nekk njëriñu Sénégal mm-hmm. ah donc euh, sa première question mooy xanaa di massaw rek di fi xew di ñaan suñu borom bi yemale ko fi parce que métti na trop mm-hmm. ñun ñu xëy seen kër am fu ñu war a dem suñu borom bi dikk ci ñoom loolu kenn mën ci dara borom bi rek moo ci moo ko mën ko mën a seral yan na ko seral ndax metti nañ ci famille Sénégal ci ñëpp la dal mu nekk lu metti lu tiis nekk une catastrophe nag loolu xam naa moo tax aussi état bi jël ci matukaay yu kawe ndax catastrophe bu amee ci réew état dafa war a jël matukaay yu kawe mm-hmm. ndax nit xam dayoo bi nit ñi tiit xam ni mm-hmm. lii ëpp na donc vingt deux mesures yooyu état bi jël ah ñu ngi koy rafet mm-hmm. ndax état lu mel noonu rek la mën a def waaye li nga xamee ni moom lañ ci am xalaat rek mooy vingt deux mesures dafa am mesure yoo xam ne dañ ko jël ci émotion parmi ces mesures-là, l'interdiction d'importation de, de, certains types de pneus. Justement, parce que loolu M. Kandé, tu me donnes l'occasion vraiment mm. pour Mantiwa. La mesure nous, amuñu dara luñ ci wax parce que les lois et règlements d'un pays c'est fait pour l'intérêt des populations et mm. pas hmm. contre les populations donc moo tax ñu nangu ko donc looy règlement dafa war nekk loo xam jariñ population bi mais waru leen lor may wax ni rek benn mesure bi ñu jël jëm ci pneu waroon nañu woo ñi nga xamee ne lañ ci pneu ñu waxtaan ak parce que loolu ñu naan pneu ñun ñu naan askanu rab ci Sénégal ba ñu dalee liggéey ci pneu ëpp na quatre-vingt-dix ans tubaab yi ñooñu jàngal pneu ci kuy jaay pëlëtee rek rab yi ñoo la ko jàngal man mii di wax ak yow dama importé pëne ba tay jële ko Suisse jële ko Allemagne jële ko France mu nekk loo xamee ni lu ñu xam la pëne bu nit ñi foogee dañuy dem France rek ñu jox ñu loo ñu jël ndax pëne bu fekkee da nga dem jël loo indi boo ñëwee ci sa loxo lay des ndax les revendeurs du ñu jënd pneu bu bon loolu moo tax gars yi def erreur pneu bu bon amul hmm. ndax ñun ñuy dem di ko jënd di sotti suxaay du ñu jël ay millions di ko def ci pneu bu bon ndax bu ñëwee ñun dañuy sotti ñu ñu revendeurs yi ñooy tànn bu ñu tànn yu baax la ñuy tànn yu bari dañ ko fay bàyyi donc ñun amuñu intérêt pour jënd pneu bu bon la preuve depuis soixante dix ans ñu ngi ci pneu depuis soixante dix ans accident yi amu fi li am tey tey mooy réglementation bi nekkoon ci liñ daan exiger chauffeur pour chauffeur man ko def am sérieux am am xel am responsabilité xam ni ay nit la yor yoru ay xar loolu kay moo changé donc man je reviens que di que li xew yëpp gannaaw yàlla la gannaaw yàlla la ñuy wax mais nag ah, lu ci bëpp chauffeur yi ak état yi am nañ ci am nañ ci ñëpp ci am responsabilité ñëpp ci am responsabilité. responsabilité c'est partagé mais may bëgg a wax ni rek pënë bu bees yi ñu bëgg a imposer pënë yu bees yu bëri nekkul pënë de qualité pënë chinois lay doon wala pënë yu du Dubaï ci yooyu yëpp du pënë radial. soo bëgg soo gisee pënë bu ne dañ ci bind radial radial mooy lu ñu lakk lu ñu lakk ba. mënatuñ ko lakk mu leer ku leen buñ ko tegee ci tali du ruy hmm. ba pare ñu def ci ay fer moom ay pli pneu radial yooyu boo dee occasion moo gën fukki pneu yu bees parce que pneu yu bees dafay toj hmm. wala mu nekk réchappé mooy lu ñu lu ñu toggaat hmm. defaraat ko rëddaat ko loolu baaxul loolu nag ku dul jaay pneu mënoo ko xam may wax ni rek que accident yi du pneu yi mais état bi man na def mesure boo xamee ni lii nga xamee ni bëgg na ko dina ko am dina am sécurité ñu ñuy jaay pneu dinañ jaay pneu yu gën a baax te ñiy jënd aussi dinañ jënd pneu yu baax. Mhm. en quoi faisant premier critère visite technique moo war a nekk pneu parce que dañu fàtte ni pneu mooy suñu relation ak tali bi. pneu mhm. mooy adhéré ci tali bi ñun ci biir oto bi la ñuy nekk. Mhm. donc lii adhéré ci tali bi moo am importance. ci importance boobu mu am moo tax ñu war ko imposer mu ne premier critère visite technique mhm. visite technique dañuy seet frein mais pneu mën na jeex nga freiner mu taxaw waaw mais dañu war a seet pneu mooy bu ñu ñëwee premier critère ñu intégré ko ci lu ñuy premier critère pas intégré premier critère da ngay ñëw xool sa pneu xool sa quatre pneu ak sa secours su baaxul ñun la doo passé demaat loolu buñ ko defee borom oto yi dina dem jënd pneu bu baax ñun ñuy jaay aussi borom oto bi borom oto bi ñëw ñu dàq ko mais du nangu jënd pneu bu bon day jënd pneu bu baax donc ce sera plus exigeant chez nous pour chercher des pneus yoo xamee ni pratique lay doon ci état bi dina am sécurité bi ñu bëgg mais donc foofu laa leen di foofu la état flanché parce que critère principal pour sécurité routière c'est les pneus yi ci des yëpp c'est mécanique yi ci des yëpp c'est carrosserie hmm. mais li nga xamee ni mooy première euh, truc pour sécuriser les les les passagers c'est les pneus ci loolu mën nañ ko def en période visite technique fekkee chaque année oto bu ñëw bala nga am visite technique ñu xool si pneu ba daan baax na mais ce sera une une excellente idée. ci mm-hmm. ñun dana nekk valeur ajoutée ci ñun. Mm-hmm. parce que mais en dehors de sa aussi dafay yàq liggéeyu askanu rab yi nga xam ne dañoo spécialisé wu. mais mais ñun loolu rek la ñu am parce que je vais te dire une chose monsieur Kandé képp ku am soixante dix ans wala quatre vingt comme li mu bëri di wax. ñun xaalis pëna la ñu ngéntee ñun yëpp ku ci amut sa cousin yaa ngi sa frère wala sa sa sa sa nijaay bu ci bu ci nekk mhm. donc ñun ci pëna lañ xam ci pëna la ñuy dund ñu xëy suba trois cent mille personnes di yëngu ci benn affaire ñun ñu ne interview ko non mën nañ ko def effet d'annonce mais nañ ñu woo ñu waxtaan ak ñoom ndax ñun ñu woowee ñu waxtaan dañ leen wax naka la ñuy def ci la première mesure bi ma wax mooy lan au niveau de la visite technique nañu imposer première critère des donc toute la chaîne va suivre mm-hmm. ñi dem di jëndi pneu à l'extérieur danañ xam ni ñuy jënd danañ ko gën a xaar seet ñi nga xam ne day revendre lañ fii danañ gën a xam ñu ñuy jënd chauffeurs yi aussi xam nañu ku ci amul pneu bu baax doo am visite technique mm-hmm. donc ce sera réglé d'accord léegi lan fa fas yéene def pour que dellu ci en tout cas li ñu fas yéene def mooy lan ñu ngi ñaan président de la république mu xam ne ñun njabootam lañ askan wi njabootam lañ parce que su suñu defee organisation tey depuis 2017 ñu ngi koy jàppale xam nañu parce que moom ci boppam gunge nañu lii may wax bu ñu gisee xam nañu bu baax xam nañu njabootam la yëf yi laal mais fu woowee njabootam danañ ci waxtaan ak moom wax ko nan la war a def pour lii mën a dem mais interdit loolu moom mënul ne parce que trois cent mille personnes mënoo xëy suba rek privé leen de travail ñu toog parce que ñun dox amul chômeur aussi parce que. dañoo am ay atelier di fas suñu doom mais je vous dis ëpp na sax loolu dans le Sénégal ñi liggéey ci pneu dañu bëri parce que dootul rab yi rek léegi ñëpp dugg nañ ci mais dama ne ñun ñoo ci dugal ñëpp ñoo jàng ñëpp jaay pneu hmm. donc sur cet aspect la vraiment bëggoon naa euh, à travers le président de la République le premier ministre ah euh, wooñu woo woote ñu waxtaan ñu xamal leen li nga xamee ne buñ ko defee dina baax ci Sénégalais yi dina baax ci ñu dina baax ci état bi ndax état li bëgg mooy sécurité ci sécurité ñun buñ ko waxtaanee ñoom dañ xam nan la ñuy def pour loolu mën a nekk. d'accord parce que loolu daal la ñuy ñaan. à à côté de cela en un mois. 62 personnes presque ñàkk nañ seen bakkeen ci ay accident mhm. euh, ban jàngat nga ci am déjà plus professionnel jàngat bi ma ci am lenn rek la mooy nañu jéem a jafeel permis bi tuuti permis bi hmm. waaw le permis de conduire nañ ko jafeel ñu koy jafeele mooy nañuy relever âge bi d'abord hmm. ba pare nañu imposé auto école yi. Ah, auto école yi. ñu fraude y' trop de fraude dans les auto écoles. yana yana mm-hmm. a des gens xam dañuy fay rek ñu jox leen permis mm-hmm. et loolu dafa war a dakk mm-hmm. loolu ci mesure yi nga xam ni moom lañ war jël teg ko ci ñi nga xam ne ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy auto école yi dafa am solo. Ah, parce que la vie des gens là mais justement contrôle bi bi nga xam ne oto bi romb na ko ci tali bi. am na ci part de responsabilité autant mais, pour les gendarmes aussi mais une grande une grosse part de responsabilité mais loolu aussi état bi mën na ko régler hmm. moi je dis que nañ digitaliser tout, euh, tout tout ce qui est contravention hmm. suñ digitaliser tout ce qui est contravention xëy na li nga xam ne nit ñi dañ koy bañ a wax ak di ko bëgg a wax du am hmm. ndax bu fekkee ni képp koo xamee ne da nga def da nga def euh, méfait ci tali bi ñu bindal contravention moom c'est digitalisé c'est direct au trésor accident bi par exemple andi quarante et un mort yi waaw fu ñu ci jàppee ab de bus policier bi ak gendarme bi nga xam ne traversé na ko ci tali bi yëpp ils sont aussi mais ils sont impliqués mais est-ce que ñoom bi ñuy rom ña nga fa c'est ça le problème aussi mënu moo incriminer comme ça rek mais je veux dire hmm. c'est toute la chaîne mais je veux dire bu fekkee mesures yi dégg jël nañ ko nañu jël contravention yi di ko digitaliser muy dem direct trésor public su fekkee loolu bu am na kenn ku ne di jaar ci li a jaar c'est important mais nañ waxtaan bu ñu jël mesure yi ci émotion parce que suñu defee émotion rek du sotti. du dem ñun nag. may fàttali njabootu président lañ. na hmm. président xam ni. lii di pën a daal ñun la du keneen. d'accord waaw am na solo. nga nekk membre benn bokk yaakaar actuellement ñu nekk ci période bu polémique autour du troisième mandat. Hmm. surtout que on est a à moins d'une année ou à de de de 2024. Hmm. Euh, yéen alliés yi. far ngeen ci toll parce que déjà y a la voix de du du ki Mmh. ko par euh, la sortie de euh, Abdoulaye Wilane qui serait contre une troisième candidature du président Macky Sall bon peut-être il a parlé à son nom propre boppam lay waxal waxalul PS euh, yéen nan ngeen ko jàngatee déjà. yéen lan mooy seen avis ci loolu. bon suma xalaat laay wax quand même. waaw xalaatu benn bokk yaakaar. sa xalaat yow sa xalaat benn yaakaar. Hmm. man li ma xalaat mooy. euh, le Benno Bokk Yaakaar est obsolète. Mm-hmm. pour gagner en deux mille vingt quatre bu ñu waxante dëgg le Benno Bokk Yaakaar est obsolète il faut compter sur d' forces nouvelles pour mën a mën a gagner deux mille vingt kon jàpp ga déjà Macky war na mën a mais ce que je veux dire en haute intelligible voix mm. le président la République. en ce moment T est le meilleur candidat pour le Sénégal. Je ne dis pour le Benoît Boca, pour le Sénégal, c'est le meilleur candidat. Pour beaucoup de choses, expliquer. Mais pour revenir sur Benoît Boca, j'ai dit que le groupe qui avait gagné en 2012 et 2019 souffre à Motofa. Et moi, je fais qu'un président, donne-moi des mots. Il a eu un compagnon noble qui s'appelait Ousmane Tanor Dieng kooku il pouvait s'appuyer sur lui jusqu'à la fin quand il est parti c'est en ce moment qu'il devait réformer le Benno Bokk mm-hmm. parce que Moustapha Niasse est un ami fidèle mais avec son âge il ne pouvait pas reprendre le flambeau peut-être si Tanor était là il pouvait reprendre le flambeau mm-hmm. après c'est là-bas en ce moment qu'il fallait réorienter le Benno Bokk Yaakaar Mais comme, comme vous dites, euh, le Benno, ça commence à se craqueler parce que si Willan dit ça, il y a les gens de l'AFP aussi qui disent autre chose. Donc, pour que le président euh, puisse être candidat, il va falloir qu'il fasse un diagnostic profond de Beno Bokoyakar mmh. et savoir sur quelle force compter sur Beno Bokoyakar. Mais en lui disant, su defee loolu ba xam yan force la mën a jàppale ci benn bokk yaakaar na wuti yeneen force nouvelle yi ko man jàppale mhm. pour deux mille vingt quatre mhm. te yeneen force nouvelle yi ñu ngi fi mhm. moom rek la ñuy déglu d' accord pourquoi nga ne Macky Sall c' est le meilleur candidat pour le Sénégal au delà même du Benno parce que Macky Sall su campagne du campagne day wane li fi def rek loolu moo des li ñu war mooy changer de communicant ba pare changer profilu communication mm-hmm. parce que dafa am ni ñoo xam ne ils sont plus audibles mm-hmm. au sein de Benno au sein de l'APR il y a des gens qui sont plus audibles mm-hmm. il faut ay nit ñu bees ñu mën wax ak nit ñi ñu déglu mais aussi ñu changer li nga xam mooy contenu bi ñun lañ doon wut li ñu wutee li li nga xam ne moom lañ doon wutal def na contenu bi loolu moo war fi mu nañu communiqué ci contenu mhm. mooy président def na ba mu ëpp. Mhm. nañ ci nañ ci communiquer. est-ce que parce que déjà sénégalais da ngay dégg ñu naan la oui liggéey na mais dafa war a dem. parce que sur le plan moral justice yooyu da ci dafa lajj. waaw d'accord mais deux mille vingt quatre bu élection présidentielle bu normal. Hmm. loolu quand il faut nga may mu tuuti ma taxaw ci. le Sénégal dañu nekk ci benn situation bu doy avec la guerre en Ukraine ci kenn xamul fu jëm avec ce qui se passe comme difficulté économique dans les pays africains hmm. et je au passage j'ai dit que le Sénégal a la tête haute dans la sous-région hmm. mais je veux dire ñu ngi jëm ci pétrole ak gaz exploitation mu nekk loo xam ne lu doy waar ci pays bu bees ndax pays bu yàqu rek ci loolu la yàqu et je veux dire Sénégal dañu nekk ci presque géej bu sàmbaraax géej bu sàmbaraax nag boo ci nekkee da nga war a wut koo xamee dafa miin gaal mais koo xamee ni amul xam musul dawal gaal xamul nan la ñuy dawalee gaal nga xamee ne en temps boo xamee ni tempête amul sax dana réer nga bëgg a jox jël sa gaal dugal ko ci géej bu sàmbaraax jox ko koo xam ne musul téye volant gaal musiba la musiba naaru laay Sénégal nu ñu ko jox dans noonu ñu ko teg dans des mains inexpertes donc foofu lay waxee élection yi di ñëw c'est un référendum pour man toujours sama xalaat laay wax Kandé c'est un référendum pour l'amour du Sénégal ñi bëgg Sénégal ak ñi ko bay ca loolu il faut ñu wax ko nit ñi il faut ñu wax nit ñi ban enjeu ci lañ nekk mm-hmm. ci ban tolluwaay la Sénégal nekk mm-hmm. parce Sénégal daf fiy jógee dem ba faw mu baax ci ñëpp wala mu jóge fi mu suux ba faw yàlla nag moom moom mooy ki nga xam moom moom moom moom moo amee waaye ñun ay nit rek la ñuy xalaat waaye li ñu xalaat mooy moment bii ñu nekk te réew mi ku ko xam ku ko miin ku ñu yëgale koo xamee ni yëg na askan bi respecté na suñu kilifa diine yi jox na leen cër respecté na yërëm na doomu aadama yi c'est important ci président Macky Sall lu mu def lu mu mën ci dimbali Sénégal mi ngi koy def guddi bëccëg suba ngoon je dis je répète que référendum la soit ku bëgg Sénégal di nga jël sa carte jox ko président Macky Sall wala comme ñu joxañ wala comme ñu joxañ rek comme ñu joxañ rek bu dul moom it comme ñu joxañ ñu jël suñ carte jox ko pour Sénégal mën a a jëm ci kam kanam am jàmm mën a jëm ci kanam mm-hmm. c'est important ce que je dis c'est important waaw yàlla baax na l'état c'est de la continuité aussi ah je sais mais dans des dans des mains expertes <laughs> merci beaucoup monsieur Mboup maa ngi lay jërëjëf jaajëfal merci. jërëjëf j'espère que fàttewoo dara. li may tàggoo rek mooy. <laughs> Ah. ñëw rek ci benn geste boo xam ne mënu ma ko magnifier bañ a magnifier. Hmm. mooy dafa am benn aaya bu suñu borom bi wax ci alxuraanu karim wax ko ki nga xam ne mooy gën di mbindeef Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hmm. dafa ne ko ma arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiin dama la yónni pour yërmande jaam ñi kese. loolu nag dafa am koo xam ne ñu ngi koy tari di ko jëfe guddeeg bëccëg suba ngoon mm-hmm. muy Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké mm-hmm. lu dal ci njaboot gi mu jóg ñaan ci borom bi mu jégg leen ñaan ci borom bi mu mu fagal leen borom mu jàppale leen ba pare jël alalam di ko def ci askan bi guddi bëccëg suba ngoon loolu du ñëw ba fii ca rafetlu ko parce que geste la boo xamee ni nit ñu bari dañ koo bëgg a négliger ci res bu kaw la te du tey rek la ko jëkkee 40 millions quand même te tey la ko du donc fu askan mi soxlaa rek moom mi ngi taxaw foofu nag lay waxee ni kon Sénégal yërmande lañ soxla fi mu ne. Hmm. yërmande nag mi ak président la république. merci loolu rek laa bëgg a tegee jërëjëf <laughs>